yu am am am solo la léegi nag li tax ñu ñëw fii Saint-Louis mooy ne que dañ dañu constaté ni que gis wax naa leen structure yi nga xam ne créé nañ leen yii depuis 2009 yi depuis 2014 ainsi de suite mais population yi xamuñu leen xamuñu leen léegi nag dañ ne comme que diagnostiqué nañ structure yi nguur gi teg pour pour pour pour doxal lépp luy règlement amiable mooy loo xam ne ci waxtaan lay lalu léegi dañuy wër na kon ci région yi pour sensibiliser acteurs yi opérateurs économiques parce que ñi ñu mooy opérateurs économique financiers yi mais même population yi aussi boo xoolee ci ñi ñu invité am na ay association de consomateur am na ay banques am na ay assurances am na ay société am na ay personnes physiques commerçantes ñu ñëpp ils sont concernés parce que ñenn ñi dañuy jëflante ak ay banque ku ci am banque problème léegi boo ngeen dégloo au wax nañ ni que am nañ ay numéro vert mode de saisine bi gaaw na mën nga leen woo sax par whatsapp wax leen sa problème lépp rë bépp rëq-rëq bu ngeen am diggante banque ak client am ñoom mën nañ leen ci taxawal ba ba jafe-jafe yooyu saafarawu bu njëlee wàllu assurance tamit ñii def ay accident de circulation wala ñi am problème ak assurance bari nañ yooyu yëpp OQSF ñoom ñaari ponk yooyu moo leen gën a tax a jóg bu dee tribunal de commerce moom société yi ñoo fay gën a faral di dem tribunal de commerce la tolof tolof diggante moom nit la personne physique ak société yooyu yëpp ñoom dañ koy dañ koy traité maison de justice nag tout ce qui est civil yu ndaw yi mooy nga xam ne entre famille la entre voisin la ay problème locataire ak bailleur ak yooyu yu ci bari